it.

Sénat bi fi ne woon tas na ko noonu lañuy ñuy ci jamono yi ñu toll yi fi nekk yëpp te amuñu benn njëriñ ci réew lu dul ay séminaire ak ay séddoo kër jëm ay au conseil du dialogue social xaw ma lan yooyu yàlla fi jëriñ yooyu yëpp Macky Sall dafa war a am yërmande ci askan wi séddoo politiciens yi ñu nekkee il faut ma créer tel post parce que war naa jox sama tel allié post ba dara new fa nga def fa ay milliards ñuy séddoo 16 milliards de 8 milliards de 4 milliards de tibis, ñuy donc. Yo da peuple conformément à ce qu'il avait fait en 2012 en supprimant le Sénat et en réorientant les crédits alloués à cette organisation à cet organisme pour la lutte contre les inondations. Il doit le faire pour le, Conseil pour le dialogue et bien d'autres. La liste peut kon ko déggandoo mon président parti Pastef nee Macky Sall bi inondation yi amee dafa supprimer Sénat jël koppar bi pour fajee ko li nga xamanteni ni ñoo lolu ci mbënd bi nee ak yenen aussi dañ ko waron supprimer muy haut conseil du dialogue social yo xamanteni amu fi ben njëriñ lolu di organiser ay séminaire de séddoo li nga xamanteni moy mooy per Macky Sall daf ko war tass yalla dogal na nag Macky Sall tass na li nga xamanteni moy Sénat tay nak ñom la Yalla tek ci bopp réew mi lolu nga xamanteni ni amu fi won ben njëriñ lu def ay séminaire di seddo ay per diem tay ñom ñoo jël li nga xamanteni moy au conseil du dialogue social dal di fay nommer sen ben nit muy ki di Mamadou Lamine Dianté li nga xamanteni amul njëriñ lu tax ngeen fay nommer ki di Mamadou Lamine Dianté est-ce que nommé wu ñu Mamadou Lamine Dianté pour muy def ay séminaire di jël ay per diem wax deug yalla jamono ji nga xamanteni inondation amna comme Macky Sall mom supprimer woon na Sénat yeen ñew ngeen lu tax supprimé wu len li nga xamanteni moy au conseil du dialogue social pour que ngeen jël ko jox ko wa Touba ñu mëna a faj lii nga xamanteni moy mooy bi ba jox ko wa Matam wala wa Podor ñi nga xamante ni daan demaaye bi mi ngi yóbbu seen i kër yi mbaa ngeen yóbbu ko ñi nga xamante ni mooy Kaolack mais tey da ngeen préféré jël kii di Mamadou Lamine Dianté bokk ci coalition Diomaye président daal di ko yóbbu ci poste boobu est-ce que li ngeen doon wax démb ci Macky Sall moom ngeen respecté wala li ngeen doon wax ci Macky Sall tey da ngeen ñëw jël seen nit daal di ko fay teg ban wax moom moo ci baax donc sénégalais yi ñoom ñooy jugel seen bopp